mbokki déglukat yi nu ngi leen di nuyu di am mbégte ci déglu bi ngeen nuy déglu di leen sant ak a delloo njukkal ci seen bataaxal yi firndeel seen cofeel ci seen émission yoonu jub jërë ngeen jëfati dégg ngeen ba taay ñu naan wolof njaay nee na lu waay di wuyoo da koy niroo wax wolof njaay jooju moo nuy tàbbal ci sunu njàngum tey mi jëm ci benn léebu bu borom bi yeesu waxoon sunu yaakaar mooy wax wolof njaay bi dimbalanu tey ba nu mën a ràññee melow ña yeesu doon waxal ak lamu leen bëggoon a wax jaarale ko ci léebub tey bi kon dafa am bés yéesu di wax ak sëriñ su mag sa ak njiiti xeet wa ci jamonoom ne leen kenn nit amoon na ñaari doom am bés mu ñëw ca taaw ba ne ko sama doom demal tey liggéey ca sama toolu raseñ ba taaw ba tontu ko ne maa ngi dem baay waaye demu ca gannaaw gi baay ba ñëw ca tafa ma wax ko noonu mu tontu ko ne bëgguma caa dem waaye gannaaw loolu xelam soppiku mu dem ca noonu yéesu laaj leen kan ci ñaari doom yooyu moo def coobarek baayam ñu ne tafa mi kon yéesu ne leen ci dëgg maa ngi leen koy wax juutikat yi ak jigéeni moykat yi ñoo leen di jëkk a dugg ci nguurug yàlla aji kawe ji ndaxte yaxya ñëw na ci yéen ci yoonu njub te gëmuleen ko waaye juutikat yi ak jigéeni moykat yi gëm nañu ko te gannaaw bi ngeen gisee loolu sax seen xel soppikuwul ba ngeen gëm ko mbokk yi ñu déglu ni ngeen ko dégge léebu bi yéesu waxoon na ko ngir feeñal melow xolu sëriñ su mag saak njiiti xeet wa ca jamono jooja ñoo waroon a jàngal xeet wa waxu yàlla te gindi leen ci yoonu njub waaye ay naafeq lañu woon dañu doon bubboo ngëm rekk waaye seen xol sore woon na ko ñoom la jenn doom ji ci léebu bii di misaal ka baayam yebal tool mu ne bu gaaw maa ngi dem te demul naka njiitu israel yooyu itam dafa mel ni bi ñu leen joxee sasu nekk ay sëriñ ak njiit dañu ko nangu ne dinañu def lépp li nu yàlla sant wante ci dëgg li xew mooy safaan rekk lañu dëkke woon seen dundin firndeeloon na ne defuñu dara ci li ñu dégge woon waaw ndaxte bi ñu déggee Yaxya muy waare lu jëm ci almasi bi yàlla dige woon bu yàgg gëmuñu ko moo na xamoon nañu bu baax li yàlla yëgle woon lu ko jiitu xamoon nañu ne gannaaw ba aadama ak awa moyee ndigalu yàlla yàlla boroom yërmande fasoon na yéene yónni ci mujjug jamono ku taqul baakaar te di soqi ko ci jigéen ju mësula sëy kooku moo di ramukat bi maanaam ki nara indi barke ak mucc gi yàlla dige woon waaye ñoom giiru sëriñ soosu bi leen yonent yàlla Yaxya woowee ci yoonu njub wiy tax ñu réccu seen baakaar te am mucc gi bawoo ci musalkatu àddina dañu lànk rëya leen taxoon a xeeb yéesu amoon nañu ay bët waaye taxul woon ñuy gis dañu bañoon a gis dëgg gi ci lu wér magum jëmu moom bu jaaxaanee ci naaj wi ne gisuma jant bi kenn mënu ci dara loolooy wone seenu mbubboo diine dafay wone ne li ñuy wuyoo niroo ko jëfewuñu ko te it wone nañu noonu ne yonent ñuy tiitaroo gëmuñu leen ndax gëmuñu li ñu wax ci benn musalkatu àddina bi am kepp moo tax mbind mi wax ci ñoom ak ñu mel ni ñoom ne xam nañu yoon wu jub ba noppi dëddu ndigal lu sell li ñu déggoon kon bañoon koo xam moo gënoon ci ñoom waaye yàlla du yem ak ñoom foofu ndax waajalal na leen ab añ wante ba tey jii am na ñu ni mel mbokki déglukat yi nanu moytoo mel ni maam yooya nanu wattu sunu bopp te baña xalaat ne ñooñu ay yéefar lañu woon yow itam ndax say jëf dañu wonewul lu ni mel ndax sag topp yàlla melul ni bopp fariseen yeeg xutbakat yi ci jamono yu yéesu ñoom de lii la leen yéesu waxoon te na la wóor ne du ñoom rekk waaye itam képp ku sa dund mel ni seen yos yéesu dafa leen ne woon yéen xutbakat yi ak fariseen yi naafeq yi dingeen torox ndaxte yéen a ngi setal bitib kaas bi ak ndab li waaye ci biir dafa fees ak càcc ak ëppal fariseen yu kumba yi jëkk leen a setal biir kaas bi ak ndab li ngir biti bi itam set dingeen torox ndaxte yéen a ngi mel ni bàmmeel yu ñu weexal ci biti am na nañu melowu rafet waaye ci biir dañu fees ak yaxi ñi dee ak tilim ju nekk ci ngistal dangeen mel ni ñu jub waaye ci seen biir dangeen fees ak naaféq ak lu bon kon xarit yi ñuy déglu gis ngeen ni sëriñ saak njiiti xeet wa ca jamono yéesu meloon bi ñu xamee li yàlla wax ak li mu yéene lépp ci mbirum almasi bi jaarale ko ci yonent yi taxul woon ñu nangu ko dañu def samandaay kuy liggéeyal yàlla fekk duñu def sax li mu leen sant looloog nee na yem yeesu nee na dañu daan takk ay say yu diis yen ko nit ñi waaye ñoom duñu ko nangoo laal sax ak seen cati baaraam dañuy def seeni jëf yépp ngir nit ñi gis leen di takk ay téere yu rëy tey rëyal seeni laari mbubb moo tax bu leen roy seeni jëf ndaxte dañuy wax waaye duñu ko jëfe bu loolu wéyee mbokki déglukat yi nu wéy ba tey ci sunu leebu bi ba gis li yéesu wax ci jeneen doom ji mu ne gannaaw gi baay ba ñëw ca tofama wax ko mu dem tool mu tontu ko ne bëgguma caa dem waaye gannaaw loolu xelam yedd ko mu soppi xalaatam daldi dem tool dégg ngeen ni doom jii def dafa jëkk a bañ na du dem tool nekk ci lu ko neex waaye bi mu seetaatee xelam rëccu na daldi dem tool moom la yéesu méngale ak ni juutikat yee caga ji ak ñépp ñi ñu teg ñu bon jëfe woon bi ñu déggee waareeb xabaaru yàlla bu baax bi moona ñooñu nekk ñu woon ñu mbiri diine ak wax yàlla yitteel xam ngeen juutikat yi ci jamono jooja waa rom yi nootoon israel lañu daan liggéeyal ñuy jël seen xaalis di laaj lu weesu li ñu leen laajloo ba tax waa réew mépp siboon leen jigéeni mooykat yi ñoom ku nekk xam na seeni yëngu-yëngu ba tax kenn nawloowu leen woon ñoo ñii nag ñooy ñi ñu tegoon ñu bon ñu yées ba di leen laale bant bu gudd waaye li ñuy seetlu mooy ñoom ñoo gënoon a ragal yàlla ci seen xol ba tax seen xel soppiku ñu gëm yoonu njub wi yàlla tëral wante du woon sëriñ sa ñoom ñi ñu teg ñu tekkiwul dara ñoom la seeni xol gën a woyof noonu ñu gis seen ñàkk doole fa kanam yàlla te bi ñu déggee yonent yàlla Yaxya muy yëgle lu jëm ci musalkat bi yàlla yónni ñu gëm ko moo tax kàddu yàlla nee na yéen ñi xam seen ñàkk doole ngir neex yàlla barkel ngeen ndaxte nguuru yàlla aji kawe ji yéen a ko yelloo xarit yi nit ñooñu xanaa nekkuñu woon ay aafis yu liggéeyal yàlla ni njiiti diina yi xeet wa wante terewul bi ñu déggee waareb yoonu njub wi yàlla tëral mu laal seeni xol ñu gëm ko te yàlla baal leen seen baakaar yeesu nag ne ñooñu dinañu tàbb ci nguurug yàlla bàyyi fa boroom kaala yu rëy ya bëggul woon a gëm yoonu njub wi yàlla tëral ndaxte mbind mi nee na aji sax ji du fonk li nit di fonk nit li ci biti lay seet waaye yàlla aji sax ji moom xol lay seet léegi nag nu ñëw ci li yeesu waxoon ci sëriñ saak njiiti diina ya ne leen yi ñëw na ci yéen ci yoonu njub te gëmu leen ko waaye juutikat yi ak jigéeni moykat yi gëm nañu ko te gannaaw bi ngeen gisee loolu seen xel soppikuwul sax ba ngeen gëm ko xarit yi ñuy déglu noonu la xoli njiit yooyu meloon ndax seenug rëy waxoon nanu ko ba noppi waaye seen melokaan woowu du woon lu bett borom bi yéesu xamoon na ne noonu la mbir yi di deme muy dëppook ni ko yonent yàlla yu jiitu waxe woon yonent ya dañu yëgle woon ne almasi bi di doj wi yàlla samp dafay fakastale xeer la wuy daaneel nit ñu mel ni xutbakat yeeg farisiyen yi waaye mbind mi nee na ku wéeru ci moom sa yaakaar du tas mukk kon nag yéen ñi am ngeen cër ci teraangaam waaye doj wa tabaxkat yi sànni mujj na di doju koñ ci dëgg ñu bañ ko walla ñu nangu ko yéesu nekk na ki mu doon ba noppi musalkatu àddina mbindeef mënu ci dara lu mat ñaari junni at a ngi nii yoo xam ne ay boroom daraja ay buur ak kilifa ci gox yu bare ci àddina démb niki tey dañu mës di xeex ki yàlla fal ñuy jéem a nasaxal jëfu yéesu di fexe faagaagal ñi koy topp te di wuta fay seen ngëm ci pexe yu wuute waaye borom bi mooy aar kàddoom te di ànd ak taalibeem yu wér yi ni mu ko diggee naan samay xar dinañu dégg sama baat xam naa leen te ñu ngi may topp duñu sànku mukk te kenn du leen jële ci sama loxo moo tax kenn walla dara du mën a def ci ñoom safaan ni ko mbind mi waxe ne gannaaw yàlla ànd na ak nun kan moonu mënal dara kan moonu mën a tàggaleeg mbëggeelu kirist du dee du dund du malaaka yi du seeni kilifa du tey du ëllëg du borom doole yi du li ci kaw mbaa li ci suuf mbaa leneen lu ñu bind dara mënunoo tàggale mukk ak mbëggeel gi nu yàlla jox ci kirist yeesu sunu boroom loolu la wolof njaay naan suul ker du ko tere feeñ te noonu la ko saboor indee it bi mu naan lu tax xeeti àddina di riir te giir yi nas pexey nen buuri àddina di tëkku te boroom tur yi diisoo jànkonte ak aji sax ji tey bañ ki mu fal ndeysaan xamuñu ni yéesu almasi bi mooy boroom ndam li démb tey ak ba faaw amin naka sëriñ saak njiiti xeet wa gëmul woon li leen yonent yàlla yaxya waxoon ci almasi bi yéesu dafa wax ne ñoom ay gumba lañu yuy womat gumba gumba nag buy womat moroomam dinañu daanu ñoom ñaar ñépp ci kàmb waaye ngeen yaakaar ne niti jamono jii ñoo tane ñooña déedéet ndaxte yonent yàlla suleymaan dafa ne amul dara lu bees ci nit ñi jant bi fenk ci seen kaw ba tey dañuy wax ak def lu dëppoowul ak diine walla ngëm mbaa daraja ji ñuy mbubboo di ko woote lu waay di wuyoo da koy niru waaw lu tax sëriñ sa ak njiiti yi jamono yéesu gëmuñu woon li leen yonent yàlla yaxya waxoon ci almasi bi lan la leen Yaxya doon lu ñu mënul woon a nangu mbind mi nee na sas wi yàlla dénkoon Yaxya doomu Sakariya moo doon delloo niti Israyil yu bare ci yàlla seen boroom mooy jiitu di yëgle ñëwu borom bi yéesu ànd ak xel mi ak doole ji yonent yàlla Iliyaas amoon noonu dina waajal mbooloo muy teeru boroom bi waaw yàlla yónni na Yaxya ngir mu waajal ñëwu borom bi yeesu waaye njiiti diine yi xamoon li mbind mi wax ci almasi bi bañ koo nangu ñi ñu teg ñu bon ñooñu ñoo ko gëmoon moo tax yéesu ne ñi mujj ñooy jiitu ji ñi jiitu ñooy mujj yow mii déglu nag ndax bëgg nga bokk ci ñiy jiitu ji ëllëg li wér mooy bëgg nga cee bokk wax ji kay mooy ndax dinga def li nga war a def ngir bokk ci ñiy jiitu ji ëllëg lenn rekk nga war a def mooy nga gëm li yonent yàlla yi wax ci almasi bi ne képp ku ko gëm yàlla dina la baal say bàkkaar ci turam ndaxte mucc amul ci keneen ci ron asamaan amul weneen tur wu ñu maye ci nit ñi wu nu war a mucce su dul tur yéesu almasi bi yéesu def na lépp ba mu joxe bakkanam ca bant ba tuur deretam faral la sa boru bàkkaar te dekk ca néew ya ca ñetteelu fan ba lépp mat na gëm rekk nga war a def léegi du leneen ndaxte mbind mi nee na ci yiwu yàlla ngeen mucce ci kaw ngëm te loolu jógewul ci yéen mayuk yàlla la du peyu jëf ngir kenn du ci kañu xarit yi ñuy déglu fii lanu yem ak yéen tey jërë ngeen jëf ci déglu bi su ngeen amee laaj bind leen nu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci waxu yeesu ji ne lu tax ngeen may woowe borom bi borom bi te du ngeen def li ma wax